allahumma inni an haytu tahayyui ila ma tuhibbu wa tarda xaqiqatan bika fi yowmi sabti billaahi aqbaltu ilayhi abda lahu wali sirral kitaabi abda asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di félicité itam nag euh, ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci politique bi félicitation bi mu ngi jëm ci marche bi ma déggoon ni am na te ñu def ko mu jàll pacifiquement dañuy félicité nguur gi di féliciter opposition bi itam comme fexe nañ ba mu am pacifiquement démocratiquement te dara yënguwul euh, yooyu moom dañ leen di féliciter ba pare encourager leen ba ñëpp rek kenn ku nekk fexe ba rek gaz lacrymogène dootu fi tàkk loolu la rek bu ko defee ñu ngi jëm ci ay intixaabaat ay élection waaw man sax dama xalaatoon ni bu ñu ko defal ñeenti candidat ak candidat président Macky candidature am mu ne ñu nekk juróomi candidat rek coow li dina gën a wàññeeku te day tax mbir yi gën a leer bu candidat yi gën a bari it daanaka coow li day gën a bari rek man nag yàlla def na ñi nga xamante ni bii ñoo gën a ràññeeku ci doonoon ay kandidaa ku ci nekk envoyé naa la soutien moo xam nga yëg ko moo xam nga bañ ko yëg waaye soutien bu mag bee mag a mag a mag moom wax dëgg yàlla président mag yi moom laa koy jox lu tax ñépp xam nañ ko jërëjëfe sëriñ tubaam ji ak jërëjëfe teeteem ji léegi dama leen di laaj yéen ñi nga xam ne yéen fi toog di sama njaboot ndax dégg ngeen fi benn kilifa bu ko birale noonu waaw kon man awma choix <laughs> lu ma ci bu ma ci kenn mere man moom personnellement aw ma choix waaw jërëjëfe sëriñ tubaam jooju tey nag ñi ko nanguwut wax te nekk ci temporel bi ah, bay boo ñu dem jébbalu ci ci moom déedéet bu ñu ko yëgee ak bu ñu ko yëgul mooy seen sëriñ li may wax jubluwuma ci lu neex ma sàmba mbaa lu naqari ma demba gis nga jër jërëjëfe sëriñ tubaa ku ko ñemee wax ca kaw nangu ko hmm? ka ko ñemee te wax te ngeen bokk dara moo mbirum àdduna yaay sëriñam bu jébbaloo ci yow yaay sëriñam bu jébbalul ci yow yaay sëriñam te ngeen baal ma loolu moom noonu la tëddee provoqué wu ma kenn bëgguma lu naqari kenn nekku du caage na damay amusé wu wala dara de li may wax dama ko gëm jërëjëf sëriñ Tuubaa laa xam mooy lan waaw ndax yàlla da koy wax yonent bi di ko wax malaayika yi di ko wax yonent yi di ko wax ab président bu jógee fale di ko répété ka répétoire te amu ci benn complexe réew mi nañu seetaat moo tax gis nga fi ñu toll nii wat yaa ngi ñëw <laughs> bu ñu fi fexee ba jéem ko fee jële léegi bu fi jógee réccu dina kooku moom non sur le plan <laughs> politique laay wax gis nga bu ñu xoolee tolluwaayu réew mi ak àdduna bi ni muy doxee ak yi ñuy wax naan feeñ na fi pétrole ak gaz ak yu demee noonu ñeneen nañ ko fi palam-palamee jële ko fi <laughs> yooyu daal xel nangu ko xel nangu ko gaañu nañu tey rek nañu tey rek xam nga am réew moom na ku nekk jàpp rek waaw ku am loo baax baaxle wala sa xam-xam kay indil loolu la rek waaye tey ma jiiteem réew par la force man de bu ñu fexoon bu jële fi Macky rek moom sama moom sama révolution jóg amul waaj sax xam ngeen ne Macky tax ma ni tekk nii rek Macky tax ma ni tekk nii peuple bi nag moo compté la majorité moo compté majorité bi buñ ko ko joxul pour mu nekkaat fii man sama révolution day pacifique man xuloo ma xeexu ma damaa yor shadid al batch habis al yor xadd fakka kabala xad ba sa fadd la fa zurru walla wan na fu jaay man mool loolu may sama révolution amul barrière amul ku may baare waaw ndax ña daan ña daan dar ñawoon woon démb ña woon démb ña leen daan dar su may su sama révolution buy jóg ñoo ñoo may dara bu ñu ko fi jëlee rek sama révolution yi taxaw tey nañu essayé mi ngi sunu kanam xam nga li ci kanam rawuti bët waajal naa sama ñépp ku nekk a na bayit isa katabtu tazza arshul baaxi wa sabbahat malaa'iku tibaax ku ne mokkal nga bayit xajul fenn lu yëngal aras ak malaaka yi fa nekk ñoom fadat wayaa iloog wadat fayaa ilu xajul fenn waaw bu ñu fexee daal di ko fiy jëlee ci politique ak démocratie bi xew hmm? ay wane ni ku ne ay républicain la ñu d'accord ay républicain la ñu waaye nañu delloo si xel yi nañu def analyse globale xool àdduna bi li xew ak fi mu tollu fi politique bi toll fi démocratie bi toll est-ce que démocratie bi dëgg la ban ban façon dëgg la démocratie bii xew nii te jóge ci tubaab yi constitution yii xew nii te jóge ci tubaab yi ban façon dëgg la dëgg dafa am forme am fond dëgg yi xatan mooy alxaqul mu biin te Sëriñ Tuubaa nee na madda li alxaqul mubinul xaqa ubil xiyaaral ulama a raqa ku may jéem a umpalelu umpalelu itam am na ñi nga xam ne waa penku wax naa ko ba tey waa penku dafa ñu gën a ràññeeku ci wàll yi ñu bokk ci rang bu njëkk bi hmm? ñooñu xam nañ la nekk ci man hmm? waa soowu itam am na ay savant yoo xam ne nee na ma yow état daf laa waroon di su subventionné yow état dafa war a jàppale sa njaboot diiwaan Moussa Seck wax na ma ko lamin Sall poète wax na ma ko ak Cheikh Tidiane Gadio wax na ma ko Cheikh Tidiane Gadio ba ma koy wax yàgg na Abdoulaye Wade la mu waxoon fële ca méridien président président Macky mii ba mu fa ñëwee ci 31 décembre bi bi mu fi ñëwee dégg la mu waxoon kon yii li yëpp leer na léegi nag suñu projet bu mag bi projet agriculture bu mag bii nga xam ne projet al muntaqa masru al masru lil muntaqa laa ko tuddee te nga xam ni Moussa def ci exposé bi mu ci def ca état waxagu ci xaj na dañoo nekk ci waajtaay waaye damaa xaarul état wax ci ak mu bañ cee wax parce que kiy jiite état bi di président yi yàlla dogal ma bëggal ko sama bopp xam nga loolu moom man la concerné te dama koy assumer du dëgg nekkul ci projet bu yeex bu yeexul <laughs> nekkul ci lool